Radiyatu anil mawla ta'ala al-nasira fa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam e, ñoo ngi amaat mbégte taxaw fii ci barab bii nga xam ne bu ñu fi taxawee danañ fi sant sunu borom subhaanahu wa taala waaye danañ ci julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye danañ feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim waaye du mën a ñàkk nag ñu ñaanal Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke sunu borom dolli ngërëmul yàlla ci moom. di ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Salihu sunu borom guddal aw fanam te dolli ak wéram. te nangul ko ab liggéeyam te kàttanal ko ba mbooleem naal yi mu naal ci liggéeyal ko lislaam suñu borom bàyyi ko fi ak kàttan akum xelam ba mu àggale ko ci darajey Seexul Xadim mbokk yi da taxaw nañ ci barab bu am solo bu am taarix mu di barab boo xam ne aw turam fii ñu toll moo di Touba Mbakke muy Touba di tur wi Mbakke di sant wi waaye ca cosaan man koo tuddee stade de Mbakke loolu nag yaakaar naa ne mbokk histoire la bu ma andee tur wu njëkk wi andi tur mujj wi fii ñu taxaw nga xame ne yaa ngi njàkkaarloo ak jumaa ju sell ji nga xamante ne bii sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou liggéeyal na ko lislaam ginnaaw boo xam ne ki fi koon meeru Mbacke yàlla na suñu borom dolli ngërëmul yàlla ci moom woyofal suuf ci kawam di sëriñ Iba doonoon taalibeb sëriñ Abdou Lahad joxoon barab bi sëriñ Saliou ginnaaw sëriñ Saliou sëriñ Cheikh jot ci barab bi waaye amu ci benn xememteef ak yenn yéene du weesu rek ni fi saytaane daan amee ndam rek mu fexe ba l'islam di fi amee noonu samp fi drapeau bi l'islam boo xam ne ba addunay tukki drapeau bu duutu euh, laal suuf ni ko Cheikh Mahamadul Muntaxa di waxee kalimatullahi iyal uliya bu mu laal suuf ba àjjana loolu la Serigne Cheikh def fii fii nga xam ne fi la rond central bi nga xam ne ci la arbitre daan taxaw di soufflé ñuy dóor bal bi ci rond central boobu fi la Serigne Cheikh defal yàlla ab néeg imaam ji di fi taxaw di xutba di delloo siwaat nit ñi ci diina di leen jàngal lislaam lool nag ndamul lislaam la lu rëy loolu nag moo noppi tey ji barab bi barab bi waaye mënoon naa yem ci tabax jumaa ju mel nii waaye décoration bi laaj ci jumaa lépp da ko cee def nga xam ne ku doon wutali sa boppu kër la ngay décorer ci sa kër ga lii nag nekk néegub yàlla sëriñ seex na décoration yim am waruma koo def sama kër ndax kuy décorer yàlla ab néegam la gën nga ko ciy defal moo tax boo xoolee décoration bi li ko wër lépp ay coquetier la ay tàndarma waaye ay garab yoo xamante ne bi lépp boo delluwaatee àjjana dana bokk li sunu borom subhanahu wa taala di bégale jullit yi moom la Serigne Cheikh décoré jumaa ji nga xam ne moo nekk ci Touba Mbacké yi ñu war koo julli incha allahu rabbi euh, ajuma di ajumay suba ji incha allahu rabbi ñu taxaw ci barab bi nag bëgg koo wan lislaam bëgg leen a wan taar bi nga xam ne Serigne Cheikh taaralal na ko lislaam waaye liggéeyal na ko Cheikhul Khadim mu dolliwaat ko nag ci ndam yi nga xam ne yàgg na ko defal lislaam la ma ko wax te boo tàmbalee ca corniche jaar ca parcelle Assainies dem ca fa nga xam ne moo di Mbour dem ca Almadi dem Xabbaan waaye ñëw fi nga xam ne te ni bii njàpp euh, moo di moo di moo di euh, Lagan euh, bërki démb rek waaye ñëw fii ci Touba Mbacké ak yeneen i juma yoo xam ne lu ci nekk ba mu ko defee ba noppi daaray alxuraan la ko booleel muy liggéey bu am solo def fa kër gu mucc ayib ñey jàng alxuraan di dëkk ci kër ga di julli ci jumaa yooya loolu la Serigne Cheikh doon liggéeyal lislaam kon damay ànd ak sama caméraman Serigne Mbacké Mbéguéré mu wan leen liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Cheikh liggéeyal na ko l'islam alayhi salaam